jox na ko suuf soo xam ne da ko ne gasal ba sa loxo toll ci sa conco lii nga suur ko fa dina la fa fekk sa sama baay dikkee foofee la dal nekkal Tuuba ko nekkal fa sëñ Tuuba nag yàlla dogal na ndimalal sëñ Tuuba ak yërmandeem lépp daara ko fay fekk dara jeexalu ko léegi naa dara jeexalu ko woon faat li ku ma ci dara waaye sama baay fasi naari góor daan takk di dañal dongo yi dañ daan tëggi tëggi ndënd muy doxee dara jaxati ba Tuuba di yóbbu addiye day dox ba Tuuba ab sa jaxate nee na ma sa baay dëkk bu ma saa jaar gone yi dañ koy topp ba ca dëkk ba ca des nu door a wàññi ko tabala yeeg ndënd yi bàjjen ngoone mbay di fecc ci kanam fas wi waaw waaw fas fu ñu naan mago ñay maa seeg mooma ko gën amana fas wu mu naan gëm leen ne uh-huh. yàlla am na amana fas wu mu naan te fasu géej uh-huh. taxu koo dajal te fasu géej mais ñetti fas dégg naa sama maam yoroon sama baa yoroon na ko bàjjan ngoone mbay day laxasaayu uh-huh. taxaw ci kanam fas yi di gaate di woy mi fas yi fecc ba Tuuba noonu la daan doxee daaru jaxate ba Tuuba loolu day nettali nañ ma ko ne sama baay ni la daan def ah, waaw ah, waaw bàjjan ngoone de da naan tagg naan neexal leen baayu sooda day war day ci suuf si naan ci ndox mi bëngeer nii la ko sa wàjjan Ngoone daan wooye waaw nii la ko wàjjan Ngoone daan wooye ba Tuuba bu boo bay ba jebule mbayam day dem ca doje doje toog ak mbooloo moom di liggéey di toj ci jumaa sama yaay day nee na ma noonu la sama daan liggéey bopp bi mu dem Cheikh Moustapha dem mu topp ko Cheikh Moustapha la ko topp fekk sama ñetteel bi dafay bootu man lii lépp dañ ma ko nettali waaye dégg fekke wu ma ko dee wax ne man day bakaanok soow laa xeebu ma kooku deret aw ma dara may wax raxman loolu sëñ Tuuba sama de loolu la daan digle moom la daan wax moom la defal jàngali jàngali doomam ba ñu wàcc alxuraan sama yaay nee na sëriñ jaxata la ma sage ko wàcce jàngale doomam ba ñu wàcc alxuraan yuri doom jàngaleen ba ñu wàcc alxuraan loolu def de lii laa xam ci sama baay Ibrahima ci li ma dégg di leen ko nettali nii ndax dana fee wax di bàyyi sunuy wax ak sunu jëf dana fee jaar di wéy rek mhm. sunuy wax dina xam mhm. ci lu baax mhm. wana lu leen ko wax yéen doom ye sët yi ba ngeen ko yéen ci seeni sët ak seeni doom yàlla na ngeen ko dund ba di ko jàllale penc mi pencum daaru jaxate la yàlla na ngeen dund ba di ko jàllale pencum daaru jaxate ko tuddee waaye eh, eh, ñëpp a ngi ci. ñëpp a ñëpp a ngi ci man nag samay dooma ciy nekk. macha allah ah, man damay wax ak yéen rek lu mm-hmm. baax. Mm-hmm. waaye mag la mm-hmm. sant naa yàlla sama borom bu baax a baax a baax. ndax na ma dem ba agsi fi. te allah ngi ma fi te di ma booleeg teraanga ak sutura waaw waaw sama njaboot gi nekk ci lu jaama yàlla ne ci lu baax maa ngi sant bu baax waaw waaw ñaan ñu bu baax waaw maa ngi leen di ñaanal bu baax liggéey bu baax a baax eh, gën a taxawaat bu baax a baax man bu baax daal na ngeen ne ci yoon wi te bu leen dëpp bu leen dellu gannaaw na ngeen góorgóorlu ci yoon wi te bu leen dëpp bu leen dellu gannaaw waaw yoon leen seen maam yi baax jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi leen siyaare waat baax a baax waa pencum Daaru Jaxate soxna Tayratu Jaxate lan ñëwoon këram ah, doon ko siyaare si mu defal ñu waxtaan barkeelu ñu ci ah, bàyyam bu baax ba imaam Serigne Diakhaté bu baax a baax a baax dan 94 Walf Sénégal xam ngeen ko nii lañ ko bëgg a ah, defee incha allah rabbi wër mag ñi dékku ci ñoom seen i ñaan jël ci ñoom si ay barkeelu bu ko defee tamit ñu waxaan ñu bu baax a baax a baax mag ña bu ko defee ñu siyaare waat bu baax a baax mu digal ñu ñu digal ñu lu baax bu ko defee nag ñu bokk eh, jëriñoo bu baax a baax a baax waaw ci pencum daal ja ndax ñii moom rek la ñu am mag ñi dong la ñu am voilà su ko defee nag kan ñu ngi leen jox dig daje incha allah ba beneen yoon kan kon soxna Tayratu Jaxate ñu ngi lay siyaare bu baax di la joxaat sa wàccuwaay di la ñaar nga yàgg bu baax a baax kàtt na suñu borom amin amin amin tudd sëñ Amadou Lo Dagana ko jur Seynabou mhm. Dieng la yaayam tudd Seynabou mhm. Dieng Moussa mhm. Buri Degan maram Jóob maram gaal gu ca kuul ak ñaamina moo maram gaal gu haram gaal gu moo jur Saynabu Jeng Saynabu Jeng moo jur soxna Ummi Lo mhm. soxna Ummi Lo mhm. mooy jur Tahiratu Jaxate ak sëñ Faatu Jaxate fii de ñoo ma seex sëñ ma loo dagana moo jaayante woon mhm. rocce ci réew mi ne ñu daa dañ ko naan daa rocce ko Negro toppi sëñ Tuubaa kenn yëgut talaata ba talaata ja delsi mm-hmm. talaata ja mu xeewen kooki goy mm-hmm. ba talaata ja delsee la mm-hmm. siyaare sëñ Tuuba ca Maayombe ba mu delsee ca déwan sa talaata ja ba mu delsee ca déwan sa la siyaare sëñ Tuuba ca Maayombe dox na dugg na na def na ko ma Mor sa maa jur la ilaha allah soxna Tayratu Jaxate di sunu maam soxna Ummi Lo soxna Ummi Lo soxna Ummi Lo Saynabu Jeng Saynabu Jeng Marama Jóob Marama Jóob ca Kool ak ñaamina kooku say sama maam sayna Marama Jóob dëkk Saynabu Jeng mosa allah macha jërëjëf Jaxate jërëjëf jërëjëf loolu moom leer nañ macha allah Eh, waa pencum daara jaxate bu ko defee ñu barkeeloo ko rek eh, soxna Tayratu jaxate ngi noonu ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool tànn ko wér tànn ko wér barkeb Sëñ Tuubaa kan eh, maam ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla yàlla wéral cër yi a Sëñ Tuubaa waaw amin amin amin amin amin amin amin amin ndeysaan amin amin amin amin amin billaay